Anyways.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 këy baarman bi ab marocain la di wuyoo ci turu karam dëkk ca Médina Rue 9 angle 6 copine bi mu ngi wuyoo ci turu beew may ma moom it di ab marocain mbir mi nag nee ñu nii la demee waa ji bi daf ne ko bàyyi naa la maanaam suñu diggante jeex na takk sa waay koy def appel vidéo ne ndaw si sooma ma bàyyee dinaa xaru ndaw si jàppe ko ay waxi kasew kasew ndax ne yàgg na ko ko wax tey te mësu ko def <laughs> ma ne ko nag moytu lu góor di fooye surtout maa ku bëgg naka noonu ci la ndaw si demee kër waa ji bi mu yegsee ca Médina Rue Neuf angle six bi waa ji dëkk dal ñëw ci buntu waa ji fëgg fëgg fëgg fëgg kenn wuyu ko ndaw si continuer di fëgg fëgg fëgg ba kenn wuyu ko ci la tiitee dal di alerter borom immeuble bi bi mu alerter borom immeuble bi moom mu ñëw fëgg fëgg fëgg fëgg baarman bi wuyuwul naka noonu nag ci la ñu woowee menuisier mu ñëw dajji buntu néegu waa ji ndeysaan bi ñu dajjee buntu néegu waa ji ci lañ fekk man bi di karam takk buum ci baat bi ci gri nekk ci néegam dal di xaru cey mbëggeel enquête bi nag li mu wane mooy man boobu di karam dafa xaru par pendaison hm, moo tax ma ne kuy fooye mbëggeel da ngaa xamul moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Mbàkke romb na doy waar ñaari apprenti sofoor daal ñoo fa jàpp ab jigéen bu tàggoo xelam violé ko ci kanamu doomam bu ndaw ay xoolal ma gi jëf ju ñaaw rek te li ci gën a doy waar ndaw soosu tàggoo xelam te ñaari saay-saay soosu violé ko dafa am jëkkër ëskay ndaw si nag mooy wax nee nii la yëf yi demee nee na ñaari samba boo yooyu di ay aprante chauffeur kenn ki di wuyoo ci turu okayta ka ca des di ësaar dañ ko fekk mën menacé ko ak paaka ndaw si dal di tiit naka noonu ci lañ ko yóbboo ci ay tabax yu yàqu yegg ci kaam waay waay ñee bon li ci gën a tee tiis nag mooy ndaw si dafa am doom bu ndaw nee ñu gaay bi ñuy yegg ci kaam doom jaa ngi jàkkaarloog ñoom di jooy di jooy san jooy yu metti ba jooy yooyu la waa koñ bi mujjee dégg dal di ñëw encercler tabax yi ñu nekkoon ñaari samba boo yooyu di apprenti bi ñu gisee gaay yi ci lañ ne fëx nar a daw gaay yi ne leen niib teg leen loxo dal di alerter élément commissaire Ibrahima Diallo yi bi gaa yi wàccee ci béréb bi teg loxo ñaari apprenti sofoor yooyu yóbbu leen ca commissariat urbain bu Mbàkke waaw góore waay yoole rek ngeen nekkee ci réew mi ñaari samba boo yooyu nag di apprenti sofoor yi nee ñu du gulet ñuy am problème ak police bi leen enquêteurs yi dee interrogé nag lànk nañu bët tëdd ci naaj bi ne di ñoom ñoo violé ñoom daal li ñu doon def ci tabax yu yàq yooyu mooy doon fa tux seen cigarette waaye ma ne tuxum cigarette rek léegi siy dem ba ci ay tabax yu yàqu waaye nag seen lay yooyu convaincrul enquêteurs yi moo tax Okayta ak Sarr di ñaari apprenti yi lundi dinañ leen présenté ca procureur ma ne leen nag de ak lu bu bees bi ci wàllum viol <laughs> am ngeen problème moo tax ma ne jàngoro dal réew gën a graw korona laa wax kii nag ab sage-femme la moom daal jëkkër ji dafa takk ñaareel sage-femme bi ba mu yëgee ne ji takk na ñaareel daa ba jëkkër ji ñëw ci kër gi mu jël paaka jam ko ko pëttal la waaw ñaareel jar jëkkër ji nag nee ñu ab agent banque la banque bu siiw bu nekk foofu noonu ca Touba moom daal dafa takk ñaareel ci beneen localité aaw bi bi mu ko yëgee dal di fab paaka jam koko ba waa ji nekk ci diggante dund ak dee fi mu ne sa waay ma nga ca l'hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba ca urgence ay waay samba moo tax ma ne réew mi yenn xeetu jabar yi boo ko amee dee leen xool de waaye réew mi da ngay am xeetu jabar boo xam ne daa fiir ba du lekk fiiriir nga xam ko boo génnee sax muy bëgg a dee ah moo tax di leen sóoraale baax nañ de ma ne fiiraange mën naa def loo nit lu ne góor ñu sonn nañ ñaareel rek ñu jam la paak ay waay waay lii metti na mu doon doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz